léegi nii euh, biir salle d'audience bi gis ngeen yéen a ngi gis noonu euh, sànq ñu ngi leen koy wax image euh, boobu Ousmane Sonko ak ay avocat am ak ki nga xam ni mooy chargé de protocole am ñoom ñoo taxaw noonu doon saafonteeg ak également le ministre Mame Mbaye Niang voilà Mame ngeen di gis noonu tey jii ci salle numéro trois bi foofee ca tribunal bu Dakar Euh, mu ñëw moom itam euh, ànd ak euh, ay avocat ànd ak ay jegeñaalem également Ousmane Sonko niki noonu ak ay avocat ak ay jegeñaalem donc ma leen di wax fii ci salle bi ngeen di gis noonu. Euh, juge bi euh suspendre na audience bi pour la quatrième fois manam ñent yoon yo xam juge bi euh, day daldi di euh, taxawal lépp ngir ñu am lo xam dañ koy régler soit tension yi nga xam gissone nañ ko fa parce que Mame Mbaye ay militants donte bëriwuñu ñu ngi fa won Ousmane Sonko ay militants également donc donte ñu également ñu ngi fa won donc xawon na am touti jamarlo ay cadeau yo xam peut-être jiboon na ci bir salle bi ba juge bi daldi suspendre audience audience bi donc muy quatrième suspension d'audience euh, li nga xamné également Aïda wax nañu ko moy Barthélemy Diaz euh, mu ngi ci biir salle d'audience mais gis nañ né euh, fim mu toll nii na daldi complètement salle bi mais également genn tribunal bu melni kuy ñibi donc euh, euh, waxtu ñuy waxe ak yéen ni Barthélémy Diaz euh, génn tribunal bu Dakar bi day dellu ci watam dit ak lan moo tax également mu génn laaj bo xamné bu samp la leneen li nga xamné également mu ngi xew ci biir tribunal bi ni ngeen koy gisee non ci biir salle d'audience bi moy Ousmane Sonko également jamono ñuy wax ak yéen dafa retiré wu génn ci biti avocat mi également top ko ñu melni ñuy diisoo di weccoo xalat di échanger en tout cas au niveau du hall peut-être di tek seen i stratégie stratégie euh, di xool nan la ñuy tëralee euh, seen seen défense euh, Khalifa Sall également gis nañ ko benn instant ci ba léegi kàddu yi nga xam ne Aïda wax nañu ko te toogal ñu ci biir salle bi moom xalifa Sall également génn na ci hall bi mu mel ni muy Ousmane Sonko muy xalifa Sall ak avocat Ousmane Sonko yi am na waxtaan bu ñuy waxtaan seen biir ci. Euh, ci li nga xamné ne euh, mooy euh, bir hall bi donc loolu d'information tam di information yuy ruusee yu fofu foofu mhm. voilà aido également dinañ xol nan lañ koy nan lañ koy je pense que ni d'accord d'accord je pense que ni dinañ xol dinañ xol nan lañ koy nan lañ koy amee donc voilà pour vous dire que le euh, ah. euh, également euh, Moussa Moussa be moom tamit peut-être du dina am ay réaction soit ci ñi